بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اكسنيل أقدار يلاو صرف بقاء بإيه لفيك يلاو addi ju am solo lañu jébbal Serigne Bassirou Mbacke Abdoul Khadir ñi def li nu mel nag mooy waa fédération Nourou Darayni di soppay Serigne Bassirou Mbacke Abdoul Khadir ci njiital Serigne Cheikh Faye bu Touba Toucar ak Serigne Saliou Faye bu Touba Jàkkiyel ak mboole membre yi nga xam ne ñoo bokk ci fédération Nourou Darayni di soppay Serigne Bassirou Mbacke Abdoul Khadir di kuréel gi nga xam ne ñooy soppay Serigne Bassirou Mbacke Abdoul Khadir ñu jébbale nag jooju addiya talaata ji fukki fan ak juróom-ñett ci mois de safar atum 1442 dëppoog le 6 octobre 2020 ci màggalu Serigne Touba Xaadim Rasul gi nga xam ne Serigne Touba moo ne woon bu dikkatee ngeen santale ma ci yàlla màggalu Touba 2020 waa fédération Nourou Daara yi di soppay Serigne Bassirou Abdoul Khadir def ci kër Serigne looloo tax nag Serigne Bassirou Mbacke Abdoul Khadir yëkkati ay kàddu yu am solo jëmale ko ci waa daayira Nourou Daara ni di soppe di xarit di am di jàmm kàddu yi dénkaan kàddu yi soññee kàddu yi jaajëfal ci liggéey asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Serigne bi nee na mi ngi leen di delloo am nuyoo bu baax a baax. waa daayira nooru daare nii ci jiital Cheikh Faye ak Salim ak ñi mboolem mboole mi àndal ñëpp nee na mi ngi leen di sant bu baax a baax nag di leen gërëm dégg nañ kàddu yu bu baax waaye xam naa ne ni ngeen ko waxee ci seen làmmiñ noonu la duggee ci seen biir xol nee na loolu yëg nañ ko bu baax a baax. nee na yëmu leen ci wax ji waaye da ngeen a jëf. ndax waxtu wu nekk seen pëstëf day yokk. seen taxawaay di yokk. ngir jëmmi sëñ bi. kon nag ñi ngi leen sant bu baax a baax. di leen xamal ne ak cant rek lañ leen ameel. ak ngërëm. nee na mi ngi leen di bàyyi ak Serigne Touba. ndax li leen war ci moom lépp yéen a koy def. màggal gi. ba ci màggal gii. li ngeen fi indi ci ay nag bari na lool. te gëju leen fi. kon lu xew lu ne rek. seen jëfa nga cay tab bi. boole kook seen yéene. kon nag sant nañ bu baax a baax. waaye waxtu wu nekk sëñ Fallou ko koy jot li mi ngi leen mi ngi koy jot seen i taxawaay. ak seen i yéene. ak seen pësteef. kon dañ leen di ñaanal bu baax rek. barke suñ Tuubaa mu kàttanal leen. dëgëral leen yokk seeni xéewal ba li ngeen yéene bëgg koo jëf yëpp ngeen am kàttanug mën koo jëf barkeb sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf